إذا رأيت Africa. syaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana muhammadin wa sallim Mbokke ño setan ñi deglu ñi ngi delu ci wat ak yeen minbarul islam euh comme nak li nga xamne mo xewo rek dinañ eh, diver programme bi ci li nga xam ne mooy xew li xew fi mu nekk nii ñëpp xam nañ ko mooy waaj gi nga xam ne mooy wàccaayu dem màkka bi ndax loolu itam islaam bàyyiwu ko te islaam lépp lu nekk sax wala bu ñëboo sax ne la loolu ponk la ci ponk islaam yi bon dafa mel ni programme yëpp ca ñi nga xam ne ñooy dem dafa aju ci ñoom ci ñooñu itam dinañ fi dem buñ fi ko dem di ratu tur wax wax booba su boobaa dina fekk ne ñoom duñ ko mën a déglu waaye ba léegi comme dem maka, amna na ci ñoo xam ne dañoo toog rek ñu indil leen ticket ne la tey ngay dem wala na nga dem màkka ren fekk sax léegi yow xamuloo ko woon dina ci xew kon bu ko defee rek su boobaa nga bi nga xamee ne yow yëg nga ne dangay war a dem màkka wala bi nga xamee ne léegi bi nekk nii weeru koor bi dee na nga dugg weeru aj yi xam itam ne léegi bi nekk nii weer yi mooy weeru aj ca man ren war naa dem màkka foofa la sharia di wax ak yow foofa nag li njëkk a laaj sharia mooy préparation bi nga xam ne moo fa war nga xam ne wax nañ ko loolu xam naa ne dégg nañ ko ci ñi nga xam ne ñu ngi wax ci aj yi yépp wax nañ leen li nga xam ne dinañ leen boole itam ñoo xam ne soo ñooy ànd ak yéen di leen wax li nga xam ne moom ngeen war a def yépp ci biir foofu dafa mel ni rek nit ki comme dañ ko sas ne ko fas alu ahla sikri in kuntum laa taalamoon fas alu ahla sikri in kuntum laa taalamoon bon képp koo xam ne yaa ngee def li nga def da nga ko war a teg ci xam-xam boo xam ne borom xam-xam moo la ko wala buñ ne képp koo xam ne yaa ngee def li nga def da nga ko war a xam soo ko xamul ba tey dese nga beneen condition mooy laaj ko borom xam-xam bi borom xam-xam xamal la ko waaye sharia bi mayewuñ ci dara nit ki di ko def ca amu ca benn xam wala léegi mu koy def ca laaj parce que bu amul xam-xam ba moom ci boppam itam war na ko laajte borom xam-xam yi ba ñooñu xamal ko ne waaw lii moom nga war a def lii moom nga war a bàyyi su ko defee boobu nag li nga xam ne moom lañu la sasoon wala moom lañ la njëkk wax ki nga dem màkka yàlla waxoon na ko ca aaya ba ne ki nga xam ne armal nag ki nga xam ne daal pare na kon wala yëg na ni dafa war a dem màkka ren léegi nag na bàyyi bépp waxi mbóosóor boo xam ne mook moom lay wax naan fa farada fii nal hajja wala mu ne la aj sax commencé ko ca na aj léegi dafa am ay weer yoo xam ne moom lañ ko jagleel weeri aj yooyu nga xam ne moom lañ ko jagleel mooy kori korité buñ ooree be weer wa jeex korité weer wa ca topp moom lañ tuddee korité weer ba ca di diggi ba ca di tebeski tebeski boobu ndax weer ba yépp la wala weer ba la ba fukki fanni ba tëbaski ba jot fi koor em ndax foofu boobu ci weer bi la wala fan yooyu rek mooy fani aj lu ca mun di mooy ne ñetti weer yi wala nga ne ñaari weer ak genn wàlla bon mooy weeri aj muy korite ak diggi ak tëbaski bi wala nga ne ñetti weer yi mooy ñetti weeri aj yàlla nag di la fàttali ne bu fekkee ne pare nga ci dogu nga ci pour léegi aji amatul benn mbóosóor boo xam ne di ko war a doxe di nga doxin boo xam ne léegi doxin bu iw la doon nit ku iw iwal sa boppa pareel boole sa boppa nag ci ñi nga xam ne ñooy nekk ujaay ci yi nga xam ne ñooy war a dem baytillaahil araam war a dellu dafa mel ci waxtu sax nga xam ki nga xam ne moom na pour léegi war dem aji boobu moo tudd alaaji bu dee jigéen mu tudd ajaratu ci waxtu boobu nga xam ne léegi mu ngi préparé pour dem su ko defee ba pare itam jikko ja dafay mel ni dafay des ci moom ba tey war nañ ko ooyee tur boobu rek ba pare parce que léegi defina lii ba pare nit ki nga xam ne mu ngi doon jàng docteur bu ko jàngee ba pare dafay nekk docteur bu nekkee docteur boobu dafay nekk ak moom su fekkee ne ki jàng looye ba tey itam looye lañ koy defee donte jàng na ba pare itam looye lañ koy tuddee bon ba tey ñii itam mun nañ leen a tuddee noonu rek dara reku ca daal waaye <coughs> waxtu yi nga xamee ne léegi yow nar nga dem aji lene falaa laa rafasa walaa fu suuxa wala jidaala yàlla aaye na la ñetti jikko yoo xam ne léegi fi nekk nii jikkooy doom aadama yu mu ànd ak moom ci loolu ne na la na ko tëral ñetti jikko yooyu wax naa ne léegi ni gars yi dinañ firim fànce nañ ko wala wax noonu nañ ca programme bi passé ne léegi fi nekk nii boobu léegi fi nekk nii buñ ko ci ci gàttal rek léegi fi nekk nii bépp caaxaan wala wax yoo xam ne léegi mu ngi aju sa diggante jé sa digganteeg jigéen nang nga ko daa na ko dal ak léegi doonte dogaanu toon sax ca bu njëkk ba itam waaye bii def ci gën a feddaliko gis nga liñ doon aaye ci ramadaan ci weeru koor liñ ko aaye jigéen ak góor yëpp ñu aaye ko fa itam baaxutoon na tam ci beneen weer itam bu dul ramadaan baaxut waaye nag ci weer bii def ci gën a bon gën caa ñaaw gën caa doonaat loo xam ne moo gën a doon gën nekk bàkkaar bi nga xam ne yàlla daf ko feddaliwaat ci yooyu waaye loolu musul a dagan ci beneen palaas sax ci yeneen yu dul weer yooyu sax dafa mel ni loolu daganul rëfës bii nga xam ne moom la la aaye ci rëfës mooy waxanteeg jigéen bépp wax boo xam ne sa jonjanteeg jigéen sa jëfanteeg moom sa defakteeg moom everything ci loo xam ne léegi lu daganut la loolu la lay aaye loolu nag mu ngi niroog lim la turee woon ne wala taqraboo sinaa jaalo bu mel ne daf ko jege woon ci li nga xam ne mooy dawaahi sinaa yi nga xam ne mooy yi nga xam ne mooy indi nit ci njaalo yooyu la lay aaye itam fii yooyu bu ci jëm sa jëflante beeg nit ñi itam léegi fu nekk ne mu àttu la ca wala rafasa wala rafasa wala fu suuxa booba mooy fu suux fu suux nag mooy koo xam ne bu mu yóbbu boppam ci faasix faasix moo xam ne ñeme naa def yëfi mooy yàlla yi ba pare ca du du ci ba du bàyyi xel ne léegi ñii ñi ngi may gis maanaam ñemee def loo xam ne dañ ko bàyyi dañ ko tere nga ñeme koo def ba pare di ko fànnaaral nit ñi di ko gis kooku nag mooy faasix ki nga xam ne ñeme na loolu mooy faasix yooyu la lay tere ne lépp loo xam ne bon sa jëflante la ak nit la ca wax yaag ca jëf yaag yépp am na yeneen details yu fa ne mën a nekk waaye léegi dinañ ko gàttal rek pour liñ jëm si foofu dam mu ne la léegi itam loolu nanga ko stop benn ña boobu ñaareel ñetteel ba mu ne itam lépp loo xam ne mu ngi aju ci wax ci làmmeñ wala looy ñuy bind ak lu ñuy def ak loolu nang ci aju lépp loo xam ne sharia daf ko tere ci waxtu boobu la gën a nag pour nga bàyyi ko moo xam looy wax la moo xam looy bind la moo xam